te sant Seex Bamba bu wete yeesu lu feddliyaat njébbal fasaad góor góorlu ngir xam ni moom lu yàlla def xadiimi lil Mustafa muy jëwrinam ju yéeme te jéema way Seex Abdu Xaadar Mbàkke ak doon te lot naa bi doon na sakki moo doon na Bamba tey donoom ci lislaam moo foog sunna moo nu doy fa sun amaam amul morom ngeen ji maa mooy ki ko doon ku dib julil seere na moo mat limu mu doon ñëwam nga fi ci yi sunu texe mi mbire rey ku dul borom do go fexe doy na ci ay na ma ay mbotam ganem ga aduna ba tax dañ ko lem aljuma ñetti ban ci tam xarit lëmbër ma feñ seytaane tiit yàq mbërët lislaam di ree ñu rab kenoom sampootina kéefar di jooy ngirub sancam toxootina taarix ba ne caama jalsasin la woon daarul lalimi fiifi ndaam na xewe woon Seex Abdurahmaan mu yëgal Seex Bamba dikkam ga fii mbir maa ko rëy baatin ba aganasem ci àdduna duy kéemaan Seex Bamba wax na ca lu muy ilimaan bés bam ganee àdduna lañ ndaw ca say ko Bamba jëma jiiteel naa raw mu daldi woo maam Ceerno jox ko tur wo wax ko ci moom ay mbir yu rii laaxar wa daldi na ko feeñ ngay del si nag ak koo fi seen bul ko sikk ci darajay gan goo giri door a dikk moo tax ba maam Ceerno guddal yoona wa ngir bëgg ñépp am te xeex xeetam wa nee na ko gan gi am na ay maqaama yoo xam ne feeñtul lut bisub xiyaama kon gan gu ñëw ëndaale yi karaama xam ngeen kii du tabbi ciy malaama caag rawam caag rawam la tàmbali si xaar. suñu borom nangu ko defal ko yëkkati leen ma bokk ci liggéey yi nga xam ne moom la si Amadou Bamba gën a nangu njàng mi yaru na wér na waaye mu mel ne day bisu ñaanta jamono ji lépp xat ñu bari am ci yéene moo war a sëriñ bu ku fi teew rek yëkkati ci kàddoom te mu mel ni sëñ boole teew na fi léegi te war a jëmaat barab mu mel ni suñu diggante ak jege te. kuy liggéey sëñ Tuubaa ba waxtu jot moom da koy dagg rek jëm ci joxe faratay sunu borom ñu bëgg a jox sëñ boole mu barkeel moom it ba tisbaar ji incha allahu taala sëriñ bi defal ñaan ñenn ñi ñu julli door a wéyalal liggéey bi fii ba jant soo jànkati xasida yi ak yi nga xam ne ñoo ci war a jaar ñëpp njàng mi moom neex na neex goo xam ne kenn rek noonu na ko def suñu soo waaye suñu boole mel na bu noppee waxtu tisbaar yi daa jot. ñu joxe ko ci si Moustapha kon Balla bismillah